بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ñoo ngi sant sunu borom ñu ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ne moom sunu borom rek mooy ki ko jagoo ñoo ngi julli di sëlmal ci ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan suñu borom mu dëkkee dotti waanu xéwal ci kaw yonent boobu ak saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ weneen yoon ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru alquran alkarim ñu ànd fàttaliku fàttaliku gu gaaw ci li jot romb xam ni borom bi subhanahu wa taala téere bi mooy téere bi mu wàcce woon ci xeetu lislaam wi ci seen ab yonent muhammad salallahu alayhi wa sallam téere ngi boo xam ni kenn du ko topp lu dul dana mucc kenn du ko gëm lu dul dana texe kenn du ko jëfe lu dul dana am ngërëmal suñu borom téere la boo xam ne dafay suuxat ngëm yàlla comme ni nga xam ni noonu la ndox di suuxatee gàncax jullit bi la gën a jariñ ci alquran ci di ko seetlu ak di jëfe moo la ëpp cër fa sunu borom ndax moom la xolam di gën a baax alquran di mbokk yi téere la boo xam ne xeet wiñ ko wàcce ci ñoom suñu xamoon valeur bi mu am suñu xamoon dayo ji mu am daañ ko gën a songaat daañ ko gën a jàng daañ ko gën a settantal borom bi dëxëñ na ci ci ay xeeti sew sew ki sekkare ki kéemaan yoo xam ni ñi ko jariñoo ñoom xam nañ ko ñi ko xam xam nañ ko ñi ko réere rek ñoo ko réere looloo taxoon mbokk yi saxaaba yi malgré que li ñuy ñàkk ñàkk ay moyens seen jamono am na ca joo xam ni kaamil bu nu ñumb amut woon alquran jun tomb amut woon alquran jun maas amut woon ay kaamil waxi noppi njàng ma yomb waaye ñoo nga doon def ay jéego yu ñu man bay wattu téere bi di ko jàng di ko jëfe xam ngeen ni comme ni ma leen ko waxee woon alquran ji nii ngeen ko gisee mu mel nii melul woon noonu ah jëlub kaamil li ci ñum baqara ba naas nangam nangama ci topp nangam nangama ci topp aaya ju nekk ñu wutal ko ay tomb nga xam ni lii mooy na lii mooy ta lii mooy xo lii mooy sha yooyu amut woon amuloon ay tomb amuloon ay maas jàpp naa ni mbokk yi alquran ji ba mu ñàkkee tomb ñàkk ay maas keroog la gënoon a jafee jàng ka tey waaye keroog la ñooñu gënoon a farlu di ko jàng di ko seetlu moo tax borom bi subhanahu wa taala defal na leen ci baraka loo xam ne wenn nit dootuñ ko amati ci seen gannaaw kon ñu ngi nekkoon ci saar wi di suratu xaafiri borom bi defaloon ci tawfiq ba ñu yegg si woon ci laayey juróom benn fukkeel kon tey ñuy tàmbalee ci laayey juróom benn fukkeel ak benn borom bi subhanahu wa taala di wax ne audu billahi samii alalimi min alsheytan arrajim min hamzihi wa nafxihi wa nafxih bismi llahi arrahmani arrahim الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس إن إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون laay jooju di laayay juróom benn fukkeel ak juróom ñett mooy suñu taxawu bind insha allah borom bi subhanahu wa taala ci suñu bind bale weesu fi mu fas woon gis ngeen borom bi di wax ni ñaan leen ma ma may leen wa qaala rabbukum uduuni astajib lakum inna alladina yastakbiruna an ibadati sayadxuluuna jahannama daaxirin ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu ba duñu jaamu suñu borom duñ ko ñaan loolu mooy sabab suñu borom alak leen dugal leen ma waxoon leen ni jaamu yàlla gi gën a neex ci jaamu yàlla yi mooy ñaan doo ca sonn doo ca ñaq doo ca daw ba noppi ñu fajal la sa soxla bi la tiyaaba yi ku doon jaamu suñu borom loolu neex na lool borom bi subhanahu wa taala dig ñu ñu ñaan ko mu may ñu bu ngeen fàttalikoo joxe woon nañ ay misaal yu ama am solo ci ñaan qadiman wa xadiisa moo xam ca yu yàgg ya amaana léegi tey kenn mu ni ah ñooñu de xëy na liñ baaxoon moo tax suñu borom doon leen nangul ñaan waaye buñ la joxee misaal yoo xam ni ñenn ñi amaan na sax yaa leen xamut wala yaa xamul ni mbir mi ñoom la gaar waaye ñi ngi dund ak yow te yàlla defal na leen ay kéemtaan ci nangu ñaan kon loolu mbokk yi ab soññaat la ñeel ngir nu góorgóorlu waat ci di ñaan borom bi subhanahu wa taala allahu yagdabu حين تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب يلا بوكو ñaanut dalay mere doomu aadama boo ko ñaanee dalay mere suñu borom dalaa mere nga ne lu ma def mu ne parce que ba nga xëyee ba léegi ñaanoo ma doomu aadama dalaa mere ndax benn yoon bi nga ko ñaan kon kooku ab safaan la bu dëpp lool sax diggante melokaanu kin bind ak ki bind muy suñu borom sunu borom ni allahu yàlla sunu borom mi nga xam ni mooy càppaacoli di ku wéet ci nguuram di kenn ki di alfardu somad alxayu alqayum alxannaanu man almannaan di dul jalaali wal ikram di rabu samawati wal ardi wa ma baynahuma kooku mooy allah mooy yàlla kooku day kun war a xam la kun war a déggal la kun war a jaamu la doomu aadama lu mën a am ci kaw suuf borom bee ko ko may tey bis dana ñëw mu faatu ba ko fi wuy ji borom boobee kooka dabu ngërëmam moo gën di fulla di dabu ngërëmal keneen ku mën a doon ndax li mu def amut keneen ku ko def lim la defal amul keneen ku la ko defal borom bi mu ne allahu sunu borom yàlla bokk na ci ay def defam alladi mooy ki nga xam ni jaala lakum moo leen defal allayla guddi gi mu mel ni mel li taskunu fiihi ngir ngeen mën a am ci guddi gi ak dal wannahaara bëccëg bi nag mubasaran sunu borom def ko mu leer nàññi bañ man di xool di def liñ bëgg a def bu ñu seetloo mbokk yi alquran fi ko tàmbalee ci baqara ba naas ay yoon yu bari borom bi dafay lim xéewal yim defal doomu aadama waaye gis nga guddi ak bëccëg ci ëpp lim limu ci la bokk li ko waral mooy dadi kéemaan gu nu jege lool te inna min shiddati dhuhuri xafa doomu aadama lu ko jege ba mu ëpp du ko jariñoo du ko gis sax nag xool ko rek ci sa xef xef yi sa xef yi doomu aadama moom daanaka bët bi muy xoolee xefa ko gën a jege te pour bët gis xefu boppam faaw nga dem wuti seetu doo koo gis te xoolal ni mu la jegee kéemaanu yàlla gi nekk ci guddee bëccëg ñun dañoo juddu fekk guddee bëccëg bi ñëw moo tax ñu miin ko yàpp ko waaye gis nga guddi ak bëccëg kéemaanu yàlla moo ci nekk mbokk yi àddina bi ni ko sunu borom bindee dafa ron loola moom da ngay dégg sax ñiy gëstu ci fànn dañoo al kuratul ardiya kura mooy bal sens boobu lañ koy jox al kuratul ardiya mooy bal bi gis nga bal bi noonu mu mel noonu la addi àddina bi mel te day tourné àddina bi dafay tourné te ba mu dalee tourné ba tey Sénégal a ngi nekk Sénégal Gambie nekk Gambie Mali nekk Mali Afrique nekk Afrique Europe nekk Europe àddina bi dafay tourné amul werante te sa buntu kër fi nga ko samp ni mu mel noonu lay mel ba faaw àddina bi dafay tourné amul werante te yow mi ci nekk doo dox ba mu yàgg nga daanu ngir ni yëf yaa ngi tourné borom bi samp ci asamaan si lu ñuy tuddee jant ak weer weer di feeñ par guddi jant di feeñ par bëccëg comme àddina bi ni muy tourné gaawut comme ni nga ko foogee maanaam nekkul day def ay vitesse nii di tourné comme ni nga ko foogee tourné boobu muy tourné ci sababu yeex gi moo waral fi ne ci àddina bi am na réew yoo xam ni mën nañ toog ay fan wala ay weer sax du ñu gis jant bi loolu am na ci àddina bi suñu borom am na foofu tey ci àddina bi boo fa demoon da ngay fekk ni ñoom ñun am nañ douze heures de temps ci guddi gi ci bëcc ci jant ci jant bi lu ko jege mbaa lu ko ëpp sax am na ñoo xam ni ci àddina bi jant bi par ba ci quatre heures temps rek la fay feeñ am na ñoo xam ni ci àddina bi fi mu ne ñoom dañuy nekk ci guddi li ëpp am na ñoo xam ne dañuy nekk ci bëccëg lu ëpp yooyu mu di xeeti kéemaan yoo xam ne boo koy wax kuy dund fii moom da koy jaaxal boo yéegoon fofal naaw léegi léegi léegi léegi léegi mu départ ak vitesse am nga romb benn dëkk fekk jant baa ngay tàng ba muy ñaq même pas cinq minutes mu dugg ci benn fëlëb boo xam ni ñam tiim ñoom ña ngay xarañ ñu ngi ci guddi di nelaw allahu akbar loolu kéemaan suñ borom la guddi nag borom bi programmé ko noo xam ni subaatan jaala nawma subaatan wa jaala laya libaasan borom bi dafa programmé guddi pour noppalu moo tax mu ne jaala lakum layla moo leen defal guddi li taskunu fii ngir ngeen am ci ak dal dal gi mooy lan mooy doomu aadama bu yendoo telli telli ba guddi jot dafa mel ni borom bi dafa def ci guddi secret boo xam ni te du dafa mel ni sax loolu mooy li am mooy tax nit di amuk dal joxe naa ko fi misaal min xayri marra ci suwar yi jàll laaj ko liggéeykatub guddi laaj ko liggéeykatab guddi bu yeewoo di fay nelaw bu xëyee di fay nelaw maanaam gis nga li nga mën a am ci guddi ci noppaloog daluk yaram foo mën a tëdd ci àddina bi nag bu yeboon nañ ko climatisé ba mu mel ni foofa waaye dal googa doo ko am ci bëccëg bi parce que du programme wuñ ko woon foofu maam dal gi mu soxla ci guddi gi programme wuñ ko bëccëg moo tax doomu aadama lim mën a am ci noppalu guddi mënu koo am ci noppalu bëccëg parce que yàlla waxoon na la ko jaala nawma subaatan wa jaala layla libaasan su ko defee doomu aadama bi bu toppoon njàngale yonent bi gis nga boo julli woon gee rek dem tëddi gis nga boo julli woon gee dem tëddi li doomu aadama di soxla ci nelaw ci guddi gi lépp balaa guddi gee xaaj day fekk doy na ban sekkare ngeen yaakaar ne moom la suñu borom def ci diggante julli gee ak xaaji guddi ba tax nit man faa doyari nelaw walis que nit ki bàyyi ba deux heures du matin mu doog a tëdd diggante ba julliwut fajar ba neuf heures ci suba tak doyal nelaw loolu ay sew sew la yoo xam ne borom bi subhanahu wa taala moom moo ko def wan nahaara bëccëg mubu seran borom bi leeral ko jant bi ñëw al allaamatu saadi cheikh nasir saadi daf ni suñu borom dafa jël bëccëg bi def ko mubsiran mu nekk loo xam dafay leer comme ni bët di ubbeekoo mu ne bu ko defee kii mën a dem ca tëgg ga kii dem ca mbay ma kii dem ca commerce ba kii dem ca tukki ba kii dem ca kenn ku ca nekk nekk ca la nga nekk ngir yàlla subhanahu wa taala leeral gu mu leeral jant bi ci waxtu bëccëg pour kenn ku ci nekk nekk si tey bopp yemul ca loolu xam ngeen ni jant bi am na yeneen i fawaid yu bari sa yaram wii bul yaakaar ni fi mu ne léeg-léeg yaa ngi génn nga naan naaj wi daa tàng ak dafa lii ak dafa laal fekk naaj wu tàng woowu ngay wax am na pourcentage boo xamee sa yaram da koo soxla boo fóotee nga weer da koy soxla gàncax gi ci àll bi pour mu màgg mel ni nga bëgg tàngooru bëccëg wi ak jant bi dafa am chaleur boo xam ni gàncax gi da koy soxla ci jant bi moo tax da ko ciy muucu yooyu yëpp ay xeeti kéemaan la yoo xam borom bi def na ko loola nag sunu borom mu ni inna allaha sa borom yàlla day la du fadlin ala nnaas allahu akbar yàlla ku bari ay ngëneel la ñe ci kaw nit ñi ku bari ay xéwal la yum defal doomu aadama yi inna allaha yàlla la du fadlin ku bari ay ngëneel la ala nnaas yum def ci nit ñi walakin akthara nnaas waaye li ëpp ci nit ñi ndeysaan laa yaskuru na duñ gërëm loolu la wolof yi naan përex nga doo gërëm ñamu daaw dafa am ñoo xam ne dañoo dañoo soxor lool duñ gërëm waaye doomu aadama li suñu borom defal defal ko ci ay xéwal ak lim defal waa àddina ci ay xéwal loola waroon naa tax ñu koy sant bu baax moom suñu borom walakin akthara annaas li ëpp ci nit ñi laa yaskurun bu ñu sant moo tax mu waxoon wa qalilum min ibadiya shakur néew na ci jaam yi ñoo xam dañuy sant lii day jàpp naa ni xeeti kéemaan la yoo xam ni ku ci def ay taxaw seetlu te am na ay yu romb yu bari yoo xam ni defe naa taxaw nan ca am ca lëf suñ ca wax dafay wane kéemaanu suñu borom ak màggaay suñu borom mu ni daalikum ki def loolu xeeti kéemaan yii jantab bëccëg weeru guddi dal gi ci guddi raj-raj loo ak rëf-rëf gi ne ci bëccëg sunu borom ni daalikum ki ko def allahu kooku mooy yàlla di rabbukum di seen borom amul kenn nag koo xam ni moo organisé adduna bi nii mu mel xam ngeen ne adduna bi ñi fi jaar bari nañ lool am na ñoo xam ne biñ jaaree ci adduna tabax nañ seen adduna ba nga yaakaaroon ni ñii duñ fi jóge irama daatil aymaat allati lam yuxlaq misluha fi lbilad ñi nga xam ne sunu borom ni kaanu yanxituuna min aljibali faari buyutan faarihin ñee sunu borom nan atabduuna bi kulli riin ayatan taabasuun wa tattaxiduuna masaani'a laallakum taxluduun wa ida batashtum batashtum jabbaarin yooyu ay xeeti puissance la yu fi jaaroon yoo xam ni tabaxoon nañ seen àddina ba mel noo xam ni kéemaan la woon dee nañ ba ko fi sunu borom moxoñe leen dugal ci biir suuf moxoñe lañ fi bawoon wutal fa ñeneen mu ni fa tilka masaakinuhum lam tuskan min baadihim illa qalil fa tilka buyutuhum xaawiyatun bima zalamu yooye borom bi subhanahu wa taala ba mu sàkkee àddina bi ba tey mbokk yi jant bi saabu xëyee génn weer wi saabu gontoo génn wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dalika taqdiru al aziz al alim wal qamara qaddarnaahu manazil xatta aada kal urjuni al qadim jant bi dafa am raay boo xam ni ca lay daw weer wi am raay boo xam ni ca lay daw ñoom ñaar ñu jege yoo lool te duñ masa laalante ndax bu ñu laalante àddina tukki wa jumia shams wal qamar boo ko déggee mooy alaxira taxaw na jant bi day daw ay vitesse yoo xam ni fa ko yàlla dàkk ni ko fii nga war a daw fa lay daw mu ni dalika taqdiru al aziz al alim na takku man ki te xereñ mooy sunu borom mooy loolu wal xamara borom bi mu ne weer wi nag qaddarnaahu manaasil dama koo daggal ay yoon yu muy war a jaar léeg-léeg mu génn ponkale lool nekk kura ron mooy bu ñu tolloo ci treize quatorze quinze seize jëm foofu léeg-léeg mu sew ruuj kal urjuunil qadim nga xam ni ku koy xool da nga naan manga manga doo ko gis bu baax léeg-léeg nag mu daal di jóge ci ak sew jëm ci ak rëy moo tax fii dañ naan xamar fee ñu ni badr fii ñu ni hilaal gis nga yooyu xeeti def def doomu aadama da koo yàgg gis moo tax mu miin ko waaye kéemaani suñu borom dëgg moo ci nekk nga xam ni jant bi fi ne bu ko borom bi wàcce woon benn centimètre rek boobu àddina moom beneen la ñuy waxati waaye tàngoor moo leen di faagaagal ñu faatu bu yéegoon benn centimètre rek boobu àddina beneen la ñuy waxat ndax seddaay gis nga dalika taqdiru al aziz al alim dañ koo natt natt boo xam ni lu tolloog li nit ñi soxla ak gàncax geeg jur gi ñu ngi koy jariñoo moo tax yent yàlla mu ni saa bu ko suñu borom wàccee lu mu néew néew néew ci àllaaxira ci ngeen dégg nit ñi fañ taxaw seen yuur yi day bax lu ko waral parce que jant bi dañ koo wàccee tàngoor woo mën na loolu lu ko raw sax laay wax suñu borom ni daalikum ki def loolu allahu kooku mooy yàlla rabbukum di seen borom xaaliqu kulli shayin suñu borom moo sàkk lépp nit ñeeg malayka yeeg jinne yeeg rab yeeg njanaaw yeeg njaayàll yeeg li nga gis ak li nga gisul lépp borom bi moo ko sàkk amut lu fi keneen sàkk dalikum allahu rabbukum mu ni xaaliqu kulli shay loo gis borom bi moo ko sàkk laa ilaha illa hu amul lenn nag lu nu war a jaamu lu dul moom ndax kat borom bi ba mu nammee ku ko jaamu dafa sàkk lu ñuy tuddee asamaan ak suuf sàkk bayaal bu yaatu boo xam ne moo nekk ci diggante ba sàkk ay mbindeef yu ñuy tuddee nit andil leen mboolem jumtukaay yuy tax duñ tumuranke ci seen ak dund ba noppi ni leen jaamu leen ma wax dëgg yàlla nag vraiment xel yi war nañ noo nangu ni ku bëgg ko la jaamu da ngay génn ci àddina su borom bi nga dem sàkk seen asamaan ak seen suuf ut espace bu yaatu ci diggante bi sàkk say mbindeef def fa vraiment boo nee leen jaamu leen ma ñëpp war cee noppi bàyyi leen ñooñu ñu jaamu la waaye nag borom bi subhanahu wa taala comme moo def lii jaaduwut kenn di jël benn cër ci cëri jaamu di ko jox keneen ko du suñu borom suñu borom mu ni laa ilaha illa hu amut lenn lu ñu war a jaamu ci dëgg lu dul suñu borom mu tekki ni fa anna tukfakuun fa anna tukfakuun mooy naka ngeen di wëlbatikoo di jaamu leneen lu dul sunu borom nga xam ne nit ki day gis lii lépp bàyyi ko fi dem fekk garab goo xam ne sunu borom a ko saxal ci suufam si mu yett garab googa def ko bant ñëw di ko jaamu moo tax fa anna tukfakuun fan la seen xel yi nekk ba ngeen wëlbatiku di jaamu keneen ku nekkut sunu borom sunu borom ni kadalika niki noonu yu fakku lay wëlbatiku alladina kaanu ñi nga xam ni ñoom ñoo nekkoon bi ayaatillahi ci aaya yàlla yajhaduna di ko weddi nii ñu la wax ni ay nit ñi ngi sàkk leneen di ko jaamu wali sunu borom sunu borom mu ni ñi nga xam ne dañ doon weddi aaya sunu borom yi di saay-saay si di yéefar yi di ña nga xamante ni ñooy nekk waquudu naar bu ñu tuubut sunu borom ni noonu la doon def sunu borom ni allahu yàlla alladi mooy ki nga xam ni jaala lakum al arda moo leen defal suuf si qaraaran mu nekk ab dalwaay bu tàlli ñareet al qaraar mooy fu nit mën a ameeg dal fu nit mën a ameeg dal borom bi jaala lakum al arda moo def suuf si qaraaran mu nekk ak dalukaay xam ngeen ni mbokk yi suuf juróom-ñaari suuf la juróom-ñaari suuf juróom-ñaari suuf buñ ko waxee comme niñ la waxee juróom-ñaari asamaan noonu nga koy jàppee xool leen jëppi suuf yi ni mu bare mbokk yi addina bi borom bi def yenn ci espace yi nekk ay montagne yenn ci espace yi nekk ndox te loola ëpp ndax li nekk ndox ci àddina bi moo ëpp li nekk suuf la ca des suñu borom def ko suuf mu jël nu nag ñun dëkkal ñu fa nga xamante ni fa la suuf sa nekk gis nga suuf soosu mooy cosaanal doomu aadama moo tax doomu aadama bu dee buñ ko defee ci suuf rek mu daal di seey lu ko waral mooy cosaanam summa amaatahu fa aqbara bu ngeen fàttali ko waxoon naan xadis ba yonente yàlla bi alayhi salaam waxoon ni yàlla dafa yabal jibril ni ko demal ci suuf nga tibbal ma ab tibb mu tibb ci mboolem xeeti suuf yi te loolu lañ sàkk doomu aadama gis nga dooma ñi nga xam ne dañuy gëstu ci kooru doomu aadama ni mel dañuy wax ni matière yi composé nit moog yi composé suuf benn la moo tax doomu aadama suuf mooy cosaanam bu faatoo fu mu ko delloo fu dul ci suuf foofu baaxut ci moom lu muy lekk na yëg ni la bàyyi koo ci suuf mooy la ca gën bal sax nag suuf ci boppam dafa am dëkk ci dafa am jeexintal bu muy def ci doomu aadama est ce que xam nga ni génn fii waxuma leen ngeen génn nag def tànk ne di dem bañ a sori daal waxuma loolu de maanaam nit ki jël tànkam di ko dëgg ci suuf di dox loolu dafay am lu muy def ci santé doomu aadama doomu aadama jëlu yaramam tëdd ci suuf si noonu dafay am lu muy aspiré ci suuf si lu muy def ci santéem gis nga julli allahu akbar sujjóot ci suuf si dafa am lu muy aspiré ci yaramu doomu aadama di ko jëlee ci suuf moo tax nit mënul tàggale ko suuf kéemaan yooyu suñu borom def ko nag ñun nag léegi jàpp nañ ni maanaam mun gën a soree suuf mu gën a baax su ko defee mun gën a gaaw a dee rek ni ngeen koy gisee dañuy basé benn waaye woo na ma ni ma xamu fu mu nekk ci benn aéroport mu ni ma pepp suuf bu mën a tiimee gisuma ko xeer bu mën a tiimee gisuma ko mu ne maa ngi nii julli jot na te mënumaa laal ndox mi ma ne alkane dab nañu doomu aadama bu dee ba fi muy dëkk lu mën a tiimee amu ko xam nga léegi suñ kër yi dem nañ ba léegi da ngay def gis kër goo xam ne ndeysaan boo bëggee tiim da ngay génn kër gi est ce que seetlu ngeen am na kër yoo xam boo bëggee tiim da ngay génn kër gi doo ko mën a tiim loolu baaxul ci doomu aadama gis nga yii yii nga xam ni moo wuute yi ni suñu borom waajaloon dëgg la mën nañ koo jariñoo waaye boo ëppee daf ñuy lor gis nga tànk bi nga yëkkati di ko teg ci karo bis bu ne karo loolu da lay jural feebar ci luy jur feebar la bokk gis nga li may wax nag waxantuma ma de li may wax nii lépp xam-xama ko saxal laajal ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci yaramu doomu aadama wala ci mbiru santé ñoom xam nañ loolu gis nga xeeti dàll yi nga xam ni dafa jege der yooyu gën a baax ci yaramu doomu aadama ndax loolaa gën a jege suuf ke xeeti dàll yi nga xam dafa gën a jege plastique yii misaal soo gisee ma dina ko jox mooy dama lay wan ni maanaam nit ki lu mu gën a jege cosaanam rek muy gën a baax ci santé loo gën a sori ci sa sa sa cosaan mu lay gën a soril kéemaani sunu borom ngay gën a sori lay jur ak santé kon borom bi moo leen defal suuf mu nekk qaraar nit ki man cee dëkk man cee bay ndeysaan bu faatoo mu suul ko fa moo tax ñëw na ci xadithul qudsi suuf danaan yabna aadam toil arda bi qadamayka yow doomu aadama dëggal ci suuf nu la neexee te nga xam ni ay fan moo la fi dese fii nga jëm si man sunu borom ni alam na jaal arda kifaatan xanaa du man yàlla man maa def suuf mu nekk yaay seex xam ngeen yaay seex kifaatan mooy yaay seex nga xamante ni moom day ŋàbbu fii boot fee ahyaan day ŋàbb ñuy dund ci kawam wa amwaatan boot ñi faatu ci biiram moo tax mu ne alam na jaal arda kifaatan ahyaan wa amwaatan kon borom bi jaay lakum al arda qaraaran moo def suuf mu nekk dalukaay wa samaa asamaan binaan mu def ko ab baar tabax wa samaa banaynaaha bi aydin wa inna la muusiuun borom bi mu ni asamaan ñun yàlla ñoo ko tabax ci kàttan te yaatal ko gis nga ban juddoo ba sunuy maam juddoo ngay topp ba àgg ca baay aadama ba ba yàlla sàkkee asamaan si ba tey asamaan saa ngi dégg rek mel ni mel loolu jàpp na ne mbokk yi kéemaan dëgg la mbaar moo xam ni ni mu yawee ko ci mboolem li féete suuf te amul benn keno bi xëyri amadin taraw naha amul keno bu ñuy gis boo xam ne moo ko téye même duñ gisul lu dul kàttan ak suñu borom gi fàqut daan wut li lay wan ni kàttan ko téye mooy suñu borom saa bu bëggee mu fàq day fàq xam ngeen ne wa yawma tashaqqaqu samaau bil ghamam suñu borom ni keroog laay fàq asamaan si bu ma ko fàqee mu def ay porte malaaka yi di ci jaare di wàcc ila samaun shaqqat suñu borom ne buñ ci yeggee ci ab ba dafay xotti asamaan asamaan si commencé def ay daggat ah yawma natwi samaa ka tayyi sijil ni ngay jëlee saw fooy lem suñu borom moom day lem asamaan si comme ni nga xamee lem yow kama badana awala xalqin nuidu fan tàmbale woon fa la ñuy delluwaat mooy asamaan amut suuf amut loola nag ci tukki tukki àdduna lay doon borom bi mu ni moom moo def loolu wa sawwarakum suñu borom moo leen melal melal ni ngeen mel yéen doomu aadama fa ahsana suwarakum suñu borom rafetal melokaan bi ngeen mel gis ngeen laaye ji mbokk yi bari na lool lu ko suñu borom di tudd ci alquran ndax doomu aadama kéemaanu yàlla bi ko gën a jege bi mën a xool mooy boppam moo tax sunu borom ni wa fi anfusikum afala tubsirun xanaa du ngeen xool seen bopp yéen tëggin tëggin wi wala toliye bi la sunu borom def ba nga mel ni nga mel doomu aadama su wéetoon gisul asamaan gisul suuf gisul jant gisul weer gisul biddiw waaye muy xool boppam yàlla bu mu taxaw nag jàkkaarloog seetu nag taxaw di xool boppam ci ngay xam ni mbokk yi melokaan yi suñu borom def doomu aadama kéemaane la moo tax mu ne laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim yéen a ngi fàttaliku ci surtout zumar ci biir ramadan bu waxoon naa ci lëf waaye xoolal doomu aadama mbokk yi melokaan wi ko suñu borom jox subhanahu wa taala koo xam ni mi ngi bàyyi koo ci toqab ndox nga xam ne du tus di ndox mu doyadi min ma in mahin ndox mu doyadi borom bi di ko déformé mu jóge ci lii dem ca lële jóge ca lële dem ca la ca des ba yegg fam yegg gis nga mànni yu ci boppam baatab mànni yu muy nutfa borom bi tudd na ko ci alxuraan fukki yoon ak ñaar ci ay aayaat yu wuute ngir sababu doomu aadama léeg-léeg muy xalaataat fi mu jaar ba nekk nit ak am solo gis nga léeg-léeg bu la jamono naree jay da ngay xalaat fi nga jaar ba nekk nit toq ndox muñ sopp bi lumbab deret muñ sopp bi suuxab yàpp mu commencé bën di génn ay cër comme ni ngeen ko gisee mu dem ba tàmbalee nekk nag doomu aadama nga xam ni bi mu jugee ci suuxab yàpp di déformé wu mooy summa ansha'naahu xalqan axar nga gis mu commencé déformé wu da ngay gis affaire bi mel ni genre wallax njaab ci biir bi fi féeteeg bopp gën a rëy lool nga xam ne fa la affaire yu baax yépp nekk bu ngeen fàttali ko waxoon naa leen ci surtu zumar ma ne gis nga fii bu doon suñu fi àddina yi damay wax ne fii moom kenn defalu ko ay mool dañ koo bétonné parce que appareil yi sophistique yi baax yépp yi nga xam ne nanguwut laal fii la nekk gis nga am na ci appareil yoo xam ni sidit yoo xam ni laal laal laal rek même ñi opéré bopp buñ ko laaloon rek dañ lay opéré ba pare liñ doon faju faju na waaye sa benn nopp bi doo ko déggati parce que boobu kenn waru ko laal mën naa am benn sirit gu ñu laal rek nga pare lañ taxoon ñu lay opéré nga wér waaye bët yi dootul gisati parce que sirit googu du gu ñuy laal sirit yi mën a laal nag yi nga xam ni moom taxut koo am solo lool par rapport ak yi ne fii ndax yëpp am solo ñu bàyyi ko ci yaram bi gis nga ndaal bopp li ni mu dëgëree ah wow comme nga xam ni yi am solo yépp fi la déparé ñëw fii borom bi bind la bind gu kéemaane goo xam ni xoola fatxaat yim la defal bunt yi gis nga yii ci bunt yi la bokk bët ci bunt yi la bokk borom bi subhanahu wa taala weexal xat ak ak xorom rangooñ daa saf xorom lan ngeen yaakaar ni moo war a mën a tax rangooñ di saf xorom taflit di lewet lii di xeeñ ñandaxit di ratax da ngeen yaakaar ni borom dafa jékki-jékki rek def ko noonu benn bu ñu jël dugal ko fan ko dugal rek am na lu tax gis nga fii amut kubéer waree su ko wutal kubéer parce que dafa war di dégg même da ngay tëdd sax di war a déglu da ngay tëdd sax waaye bu fii amoon kubéer xam nga ni comme ni bët di gëmmee yow ku lay yee tey nga dee doo dégg gis nga fii niñ ko tijjee comme dañ ko tijji amul gardien nag borom bi jël benn liquide boo xam ne bu xeeñ la def ko fi amul benn ndundat ci ndundat yi buy yërndu lu dul bu xeeñ koo génn gis nga we nu mu tuddati wextan wi nekk ci rangooñ borom xam-xam yi dañuy wax ni bu fekkoon du loolu la ci borom bi def matière bi ñu liggéeyee bët dafay seey kon matière boobu dafay seey boo rekkee ci bakkan nga gis la ca nekk ratax doomu aadama li muy nokki yow yaa yaakaar ni fi ne fii amul ay poussière ak salté yu demee noonu waaye li ngay nokki da ci am loo xam ni ay lor la lor yooyu am na ci yoo xam ni kawar yi na ci bakkan a koy téye am yoo xam ni ratax ji moo koy téye sharia borom sharia ak ni mu baaxee mu digal la jàpp nangami yoon ci bis bi ndax lu fa jot a dugg lu mu gaaw gaaw balaa yegg rek aman na boo fi jàppee nga sarax ndiku rek mu génnaal mboolem cër yi central bi mooy xol mooy xol xolal yàlla soo tala ni mu bindee doomu aadama fi ne même ku la dompatoon ca tànk lu dompat bi metti metti lu mu woyof woyof automatiquement am na benn sidit goo xam ne moo koy yóbbu fii ci bopp bi ne ko ah bopp am na lu xew de yëngul am na lu xew gis nga ne lu mu da nga yaakaar ne da ngay màtt rek nga yëge ko tànk bi déedéet dafa am benn sidit guy daw boo xam ne vitesse yi muy daw moom kéemaan suñu borom la xel mi daal di yëg ni am na fuñ màtt ci tànk bi nga daal di yëkkati sa loxo doo fekk yoo la léegi su ko defee xel mi daal di yable mu yabal loxo ni ko demal fii moom dañ ko defal automatique parce que fii jàmm doo nga fi war a xew loo gaaw gaaw ab joxoñ automatique lay dem mu daal di gaawte borom bi defal ko lii gis ngeen wextan wi nekk ci rangooñu bët bokkut ak wextan wi nekk ci ñaq gis nga da koy def nii bu ñaq wi yegsee mu wutal la aw yéen jigéen ñi ñoom dañuy wat seen yéen yi moo taxit gaaw a gumba rek parce que bët ñaq yi ciy dugg da koy yàq bala nga ci woon xam dara mu rëcc ñaq rëcc ba dugg sa biir bët rek defe naa loolu gaa yi xam nañ ko ñaq yu dugg ci bët moom gaa yi xam nañ nu mu mel loolu baaxul ci bët gis nga nii la koy déggee bu rëccee mu ñëw ci xef yi bu rëccul da nga doog a jël sa wàll nag ci nett bi allahu akbar melokaan bi suñu borom bindee doomu aadama xoolal fixe central bi gën a tàng ci yaram mooy biir ndax biir lépp lu ci dugg ci lu ñuy lekk daa war di togg su toggoo ay minute wala ay waxtu mu mel na mu war a mel jàll fa mu war a jàll boo gisee ñun sunu wér demeewut noonu yi ko sabab bari na gis nga bokk na ci mooy lekk reesa dun nga lekkaat li gën a gaaw ci jox doomu aadama feebar loolu bokk na ci lekk reesa dun nga lekkaat dafa am nombre de waxtu yoo xam ni lu nuy lekk lu nekk appareil yi ne ci biir war na ko caa am jàllale ko fa mu koy war a jàlle parce que bul fàtte ni bu koy liggéey yow moom yaa ngi këndax këndax yi dem rek tisbaar nga bombardé mu jàll tàkkusaan julli wa te xoolal boo seetloo jamono jooju kat machine bi moom mi ngi liggéey lii dugal na ko ci yàpp wi lee dugal na ko ci deret ji lii dem na ko mu nekk gannaaw kër lee dem na ko mu nekk ndox mooy tuur lépp ci lekk gi lañ koy jëlee borom bi wutal la ay poos ci yaram wi yoo xam ni dafay xëcc suukar di denc xëcc xorom di denc gis nga doomu aadama bu loroo fii muy faatu pour mu daj bañ a gaaw a faatu léegi énergie bi nekkoon ci yaram yi moom ngay ñuqi léegi di ko jariñu moo tax loof da lay gaaw a yomb gis nga nit bu lekkut lekkut bay xiif bu bu ñu ko gaawul woon li tax muy gaaw a dee mooy yaram wi li ko doon téye léegi moom ngay ñuqiwaat yaram wi di ko jariñoo waat defe naa bu ngeen fàttali ko joxoon naa leen misaal ci woor boo gisee yonent bi digal dogee tàndarma loolu parce que suukar bi yaram di utiliser nombre de minutes yam cay am pour jox ko yaram wi genn wàll nga bu ko defee ci suukaru tàndarma rek automatiquement mu jox wàllam deret jox wàllam yaram bi billahi bu ñu suñu borom defoon ñu nekk melokaan yi comme comme rab yii xam ngeen ni sol kos ah karawaatu mel na nga war a mel sa waay di doxee ñeenti tànk comme ni fas di def sëgg sa loxo yi di di sëgg loolu rafetul de wallahi rafetul maa nga maa nga sol sa xamis nii ba pare sa waay di dox di ñaari tànk ne ca kanam ñaari ne ca ginnaaw moo ne bi suñu borom di sàkk yow fekkee woo ko de borom bi mënoon na laa def lu ko neex yow xool rab yi ay fas ak ay nag ak nga xam ne bëggee lekk gémmiñ gi lay lekkee su bëggee wokkatu gémmiñ gi lay wokk yow da ngaa yaakaar ne mënoo woon a nekk noonu sawwarakum fa ahsana suwarakum yàlla moo rafetal seen bind amul benn cër nag boo yëkkati lu dul da nga naan bii de bu ko suñu borom defoon feneen fudut fii ah yéen yéen imagine leen bët bu ko suñu borom wàcce woon fii benn benn du rafet ñaar fi mu nekk baaxut ñett gis nga bët ni ko suñu borom monteeg fi mu ko fixé xoolal lu dul gestu maanaam li nga soxla yëpp ci sa kanam ci li ngay gis ak espace bi nga xam ne moo vidde ci sa kanam la ngay mën a gis lépp feneen foo ko monté nag essayé ko sa xelum bopp nga natt rek maanaam vitesse bi bët war a mën a daw ak la mu war a gis du am bu ko defoon sax da ngay loru faf du baax gis nga yi gën a sell muy fa ñuy lekkeeg fa ñuy déggeeg fa ñuy giseeg mënu ko nangu ca kaw xoolal bopp bi li li appareil yi baax yëpp yi mënta ñàkk yëpp fii la nekk gis nga fa lekk yi jaar di dugg ak fa lekk di génne xoolal ni ko suñu borom sori yoo ndax bee set bii salte allahu akbar est ce que doomu aadama mbokk yi dinañ tam doog doog doog doog di xalaat loolu yaram wii borom bi mi ngi ko composé ñetti téeméeri yax ak juróom-benn fukk ñetti téeméeri yax yaak juróom-benn fukk mi ngi ànd ak ñetti téeméeri silit ak juróom-benn fukk benn bu ca nekk bii day dijj bii sew bii gudd bii gàtt am na silit yoo yax yoo xam ne dafa sew wuut lu tax parce que fan ko dugal mooy dimbali lii lañ tudd ci wolof conc mooy dimbali conc yi conc bi pour affaire bi di lemoo ko ñëw boo ñëwaatee ci tànk moom nga may fekk yax bu sew lay doon parce que foofa la xaj am na yax dox moom la ñu tuddee alhaykalul azmi mooy yaxu digg gannaaw bi nga xam ne moo tàmbalee fa kaw bopp ba wàcc jaar ci ndigg li ñëw ba ci suuf moo tax bu dammee rek xëy am moom lu ne ngay dégg tànk bu damm nangam waaye ndigg lu damm moom mosi ba rek yooyu nag borom seytaan daf nu koy nettali ngir lan ngir ñu koy xalaat di ko seet wallaay gis nga doomu aadama su amoon jom yii su ko xalaatee dana tax mu gën a góorgóorluwaat digganteem ak borom moo tax mu nga fi am fusikum afalaa tubsiruun xanaa du ngeen xool seen bopp ak ñu leen suñu borom bindee moo tax mu ne wa sawarakum borom bi moo leen melal fa ahsana suwarakum mu rafetal melokaan yi ni ngeen mel wa razaqakum min at-tayyibat suñu borom wërsëgal leen ci yu teey yu laab yi firwi yeeg gàncax yeeg yi ñuy dundeeg yi génne ci suuf seeg yi ne ca biir suuf si ak yi nga xam day sax ca kaw ak yépp ci yu teey yi borom bi moo nu ko wërsëgal kon nit ki lu mu am ci ay biens yi àddina rek borom bi moo ko defal ah bi ngay judd andi woo dara ne xoolal liir ni mu ñëwaale ndeysaan andiwut dara banque ay loxoom ah solul dàll solul tubay solul mbubb yow boo ñëwee li nga àndaalee ko si néew sax dañ koy nangu kawar gi nga yore sax dañ koy wat jële ko fi amoo dara amut dara moom liir bi ñëw ñu dem bañ naan yaa moom lii moom lee moom doomu aadama xamul boppam de wallahi xamul boppam ku xamoon sa bopp dëgg dëgg dëgg léeg-léeg boo bëggee doyadal sa bopp benn waaye dafa sol benn mante bu rëy di paccax paccaxi ci kaw mbooloo mi naa man la diw man la nangam ku ma xamut may lii daal est ce que yéen xam ngeen ma benn borom xam-xam jub ne ko waaw maa la xam de yow yaay ki jaar ci barabi sobe ñaari yoon ñëw taxaw ni lumb dégg nga wax yaa jaar ci barabu sobe ñaari yoon taxaw ni ñum sa biir bi fees jàll ki sobe yaa man xaraja min sabilil bawli marratayn ci yoonu sobe ci nga jaar ñaari yoon taxaw ni ñum sa biir bi fees jàll ki sobe yow yaay yow loolu doomu aadama di ko xalaat daf koy ngalab saa bu ko seytaane naree fetteerlu loo wala bu nar la koo jàdd yoon kon wa razaqakum min at-tayyibaat borom bi moo leen wërsëgal ci la nga xam ne mooy wërsëgam yu teey yi suñu borom ni daalikum ki def loolu allahu mooy yàlla rabbukum di seen borom kon nag fa tabaraka allah barkeel na moom suñu borom loolu mooy wolof yi lu ñu naan gàcce ngalaama fa tabaraka allahu gàcce ngalaama suñu borom rabbul alamin moom de moom mooy borom bi léefi li nga am lépp cay xéwal moom suñu borom moo la ko defal te boo feebaree kat te ànd ak yooyu yëpp boo feebaree mooy faj boo amee aaju moom ngay ñaan boo jàqee ci moom ngay dellu moo lay dundal oxygène bi ngay noyyi moom moo ko bàyyi ci jaww ji ah suufam si ci nga dëkk asamaanam see la tiim ci wërsëgam bi ci ngay lekk jàpp naa ni kii de borom xel bu fekkee digal nañ ko mu jaamu war naa góorgóorlu mu jaamu borom bi subhanahu wa taala kemtalaay ak lam mën na moo tax mu ni fa tabaraka allahu rabbul alamin bu ngeen fàttalikoo ba ñuy tafsir suratu muminuun ca sabxa bu njëkk ba leeraloon naa fa étape yi nga xam ni ci la doomu aadama yi jaar summa xalaqna nutfata alaqatan fa xalaqna al alaqata mudgatan fa xalaqna al mudgata izaman fa kasawna al izama laxman summa anshanahu xalqan axar suñu borom ni toog ndox la woon ñu dem ba mu yàgg ma soppi ko def ko lumbab deret ñu dem ba mu yàgg ma soppi ko te bu ci nekk 40 40 jours la nag moom comme ni mu ñëwee ci xadis ibn Mas'ud 40 jours mu soppeeku nekk lumbab deret 40 jours mu soppeeku nekk suuxab yàpp bu nekkee suuxab yàpp nga tegaat ci 40 jours 120 jours ma ngay jàll teg ab diir nga gis borom bi yabal malaaka mu ñëw daal di wàll ruu gis nga fi mu ne nii fii ak àggut foofa ma sàmbatane wula ci ma démbatane wula ci bu boo muy nekk médecin bi gën a fort ci àdduna bi nag laa wax nay liggéeyee sax Europe dara xamu ko ci gis nga seen appareil bu ñu ko ca tegee dara du génn laa wax fi ñu fi nekk naan yàlla moo xam kumpa waaye nit ñi mën nañu teg ay appareil xam naa kii góor la am kii jigéen la am dama ne am na foo xam ne juróomi junni appareil bu ñu ko fa tegee dara lañ dul gis xam nga lu ñuy gis benn affaire bu mel ni wallax njaar du dara xamoo ndax góor la xamoo ndax jigéen la xamoo dana judd xamoo du judd xamoo dana baax xamoo du baax xamoo dana silmax xamoo du ko def yooyu yëpp borom bi moo ko xam ah suñu borom defar li muy defar ba noppi ba yëf yi sotti mu bàyyi ko ci mbir bi nga ñëw teg sa appareil ci naan waaw am naa xam-xam loolu daal mi ngi mel ni néeg bii nga daal dem ubbi ko rek gis ko fa tëj te naa gaa yéen kenn xamul ne ci yéen kenn xamu ko kay parce que yaa yërnu ñun kay bu ñu yërnu woon xam la fa nekk loolu rek la. moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ni juróomi yëfa ngi yoo xam ne mooy mafatixul xayb laa yaalamuha illa allah yàlla rek mooy ki ko xam kañ la taw di wàcc kañ ngay dee kañ la àllaaxira taxaw li jigéen ëmb lan la loolu borom bi rek moo ko xam muy summa anshanaahu xalqan aaxar mooy gis nga bi ñu demee ba doomu aadama ji mel noonu nag léegi nag mu des nag ñoom ay sidit yuñ ko raakal yuñ ko branché noonu muy lekk di naan fa jaalnaahu fi qaarin makin borom bi wutal ko place bu am sécurité ila qadarin maalum mbokk yi ñun ñi ñëpp ci loolu lan jaar de gis nga boo fi màggee ba sol fi sa yére commencé sol say dàll dàll yi xaw a diis ñu commencé bonde fii dong nga jaar de fii rek nga jaar léegi di ko xalaat nag daf lay dànkaafu day gën a tax nga xam sa borom ba mu noppee ca suuratul muminuun mu ni summa ansha'naahu xalqan aaxar ñu daal di koy bind geneen bind nag mu nekk doomu aadama di xaar bi sa juddoom jot mu ni fa tabaraka allahu ahsanul xaaliqin lu mu ci teg mu ni summa innakum baada dalika la mayituun après da ngeen dee de da ngeen di dee de summa innakum yawma alqiyamati tubaasun sunu borom mu ni kon fa tabaraka allahu barkeel na moom sunu borom rabbul alamina mooy borom bindeef yi huwa alhayu moom mooy kiy dund su ñu nee kiy dund yow da ngay dund yow it leen wuutale mooy moom ak dundam amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem yow sa dund daa am fu mu tàmbalee am fu mu yem leen wuutale mooy moom ak dundam kenn wuutalu ko ko yow sa dund dañ la kaa wuutal li leen wuutale mooy moom ak dundam soxlawu ci dara te yow sa dund daa am yoo ci soxla daa am yoo xam ne boo ko ñàkkee dee xam nga ni ngelaw li boo ko ñàkkee dee ndox mi boo ko ñàkkee dee oxygène ila axiri kon bu ñee huwal xayyu ah borom bi mooy kii dund dund gi tax ñuy wax gamul fu mu tàmbalee laa ilaha illa hu amut lenn lu nu war jaamu ci dëgg lu dul moom mu ni faduuhu na ngeen ko jaamu muxlisiina lahu diin te ngeen sellalal ko diini ji ginnaaw bu ngeen xamee ni moo def lii sunu borom mu ni fa tabaraka barkeel na allahu yàlla rabbul alamina moom mooy borom bindee fi sunu borom mu ni qul waxal ni inni man kat nuhiitu dañ maa tere an abuda allaha ah ma an abuda alladina may jaamu ñi nga xam ni tad'uuna min dunillah ñoom la ñuy woo di leen jaamu wali suñ borom loolu dañ ma koo tere lépp loo xam ni ci bokkaale lay dugg yàlla nee na dan la koo tere ginnaaw boo xam ne lamma jaani al bayinatu min rabbi ginnaaw bu njub gi ñëwee bàyyi ci ko sama borom njub gi mooy lan mooy alquran njub gi mooy lan mooy sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam njub gi mooy lan mooy ginnaaw bu ñu leerale ni lii kat ku ko def tàbbi àjjana lee ku ko def tàbbi sawara man rabbi sunu borom mu ni qul waxal ni inni man kat nuhiitu dañ maa tere an aabuda may jaamu alladina ñi nga xam ne tad'uuna min dunillah da ngeen leen di woo di leen jaamu wali sunu borom lamma jaani albayinatu min rabbi ginnaaw boo nga xam ni njub dikkal na ma bàyyi ko ci sama borom wa umirtu dañ maa digal an uslima naa jébbalu li rabbil alamina ñeel borom bi borom bi jëf muy suñu borom borom bi daf noo digal nan bana jaamu leneen lu dut moom waaye daf noo digal nan ko jébbalul mbokk yi jébbalu yàlla lan koy defal jébbalu kenn rek lan koy defal muy suñu borom wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ibrahima kat ba mu doon dénk waa këram dañu leen waaw lan ngeen di jaamu ku ngeen di topp ci ku ngeen di jébbalu bu ma fi jógee ñu ne ko dañuy jébbalu ci ka nga jébbalu woon muy sun sun borom balqiis day ak li muy ñàkk ñàkk jàng diine ba mu naree tuub dañuy aslamtu maa sulaymana lillahi rabbil alamin tey ma jébbalu ci waaye nag sulaymaan da nga maa waar kese nag du tax ma jébbalu ci yow de damay ànd ak yow ñu jébbalu ji ci ah yàlla borom jaam istislaam istislaam mooy jébbalu xam ngeen luy jébbalu jébbalu mooy ñëw ba ci kanamu ki ngay jébbalu ci moom ni ko jox naa la saa nos gi jox naa la saa yëf yi amatuma lu may bëgg amatuma lu may bañ loo digle loola la loo tere loola la loo bëgg ma def ko loo bañ ma ba yow nag laa jàpp ni yaa féete kaw ñépp moo tax ma sujjóot jébbalu sama kanam loolu mooy jébbalu de istislaam al istislaamu lillah moo tax yàlla rek ñu ko war a defal subhanahu wa taala loolu alquran saxal wa man yuslim wajhahu ila allahi wa huwa muhsin gis nga de ku jébbalu mu ni mu ni fu mu jébbalu mu ni ila allahi ci yàlla jébbalu moom ci yàlla boobu moo balaabal ku jébbalu ci yàlla wa huwa mu'min te fekk ku gëm yàlla la ah suñu borom dana ko defal xéewal yi nga xam ne digg na ko borom bi wa umirtu dañ maa diggal an uslima naa jébbalu lilla li li rabbil alamin ñeel borom bi ndeef yi mooy sunu borom sunu borom ne huwa moom sunu borom gis ngeen aayaat yi toggal ko yépp mbokk yi ci bind bi aayaat la yoo xam ni aaya yi leeral pas-pas la ngir nit ki xam sunu borom ndégle ndekete yoo te yoo xam-xam ba ca gënte jiitu ci mooy xam sunu borom nit ki lu mu bari bari xam-xam te xamul sunu borom kooku xamul dara loolu mooy xam-xam al aqidatu saxiixa mooy xam-xam sunu borom ne huwa moom sunu borom ba léegi alladi mooy ki nga xam ni xalaqakum min turaab moo leen sàkk ci suuf suuf soosu wax naa leen ko xëyra marra mooy bàyyi aadam nga xam ne aadama sàkkeewuñ ko comme ni ngeen xam aadama amut yaay amut baay aadama suuf lan jël suuf soo xam ni min salsaalin kal faxaar suuf soo xam ni min xama im masnuun ah suuf soo xam ne léeg suñu borom ne min turaab ah fee mu ne min salsaalin min xama im masnuun ban buy rimbi rimbi borom bi jël ko def ci doomu aadama mu mel nii mu mel nekk juróom-benn fukki xasab ah punkale lool njool lool ca kaw yent yàlla bi nee na noonu la doomu aadama yi meloon da ngeen yaakaar ne maam aadama daa meloon noonu di jur lu aadama ñun doon jur gàtt nu woon de comme ñun de aadama juróom-benn fukki xasab te xam ngeen juróom-benn fukki xasab mooy koo xamante ni mën ngaa taxaw sa loxo sa waay yóotu ci la nekk ci deuxième étage nga jël ko te fekk yaa ngi taxaw aadama noonu la meloon jur ay doom yoo xam ne même buñ melul ni moom jege nañ ko waaye nag yent yàlla bi nit ñi commencé di wàññeeku mu ni ca la nit ñi commencé di wàññeeku ba tey jii nga gis nit ñi mel ni ñu mel xam ngeen ne ci xeeti arab yi am na ci ay nit yoo xam ni ñoom melokaan wi leen suñ borom bindee melokaan wu xaw a jege loolu la am na nit ñoo xam ni kéemaa ni suñ borom lañ Muawiya ibn Sufyan ci jamonoom dafa amoon xam ngeen buur yi dañuy faral di defante ay yëf maanaam sama réew am na lii sa réew amut lee am na benn buur boo xam ne buuru Romain la ci Romain la bokk waa ji mu daal di indi koo xam ni sawaay dëkk bi yëpp ku koy xool da ngay téye xam nga affaire font font yooyu rek lii am na sama dëkk amul sa dëkk ndax buur laak diggante buur laak buur koo xam ne ku koy xool da ngay téye bi ko buur bi indee mu dajeeg Muawiya Muawiya daal ni dem leen wool ma Muhammad ibn al-Hanafiya Muhammad ibn al-Hanafiya Ali moo ko jur Ali moo ko jur waaye Fatima jur ko du doomu Fatima Muhammad ibn al-Hanafiya daa summi tubay jim sol jox ko bi ko waa ji solee fii la yem ci dënd bi maanaam tubay ji daa fëq ba yegg ci dënd bi kon moom kii ku gën a njool maanaam nit ñi dañuy siggi di ko xool waaye moom day siggi xool kii xam nga loolu da lay wan ni kon am na nit ñoo xam ni ba tey ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na saxaaba yu meloon noonu am na ñoo xam ne dañoo siggi woon lool njool melokaan woowa nag ak bu ko gën a sut noonu doomu aadama yi meloon gis nga ñuy wàññeeku di gàtt di wàññeeku di gàtt ba tey borom bi soo gën a kon moo ñu sàkk min turaab ci suuf summa ginnaaw ga min nutfa ci toq mànniyu nga xam ne ay mili mili mili mili toq yoo xam ne bu ne war naa mën a am doom suñu borom tànn ca lam cay tànn loola mooy nekk nit summa ginnaaw ga min alaqa borom bi sàkk leen ci suuxab yàpp alaqa mooy lumbab deret summa yuxrijukum tiflan mu daan leen génne ngeen nekk ay goos ay xale gis nga li mu doon wax sànq ci wasawarakum fa ahsana suwarakum kon borom bi moo leen jaarale foofu summa yuxrijukum tëflan gis nga ne fi nga jaar étape yi nga jaar foog naa ci suratul muminun comme ni ma ko waxee foofu la gën a leeree summa yuxrijukum tëflan nga xëy génn sunu borom mu ne summa sabila yassara ma yambalal ko yoon wi mu jaar ba génn ah summa ginnaaw ga li tablugu ashuddakum ngeen dem nag ba yegg nag fu ñuy amee doole. nga judd xoolal fas daa jur doom doom ji bu juddoo ci suba si balaa ngoon mu commencé dox defe naa gis ngeen ko mbaam kasaalika rab yi nga gis doomu aadama nag teral giñ ko teral tax na moom du judd rek dox de moom day judd ñu koy megg meggal di ko màgg màggal di ko bàmbaane defe naa xam ngeen bàmbaane di ko bàmbaane ba mu xëy mën a dëju ba mu xëy mën a taxaw ba mu xëy mën a dox loolu ci teraanga ji la bokk bañ du gaaw a génn ah ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci yi nga xam ni borom bi étape la koy def ngir doomu aadama di ci mën a gis kéemaani suñu borom summa li tablugu ashuddakum ngeen dem ba am doole ah summa li takunu suyuxan ngir ngeen war a nekk ay paa suyux fii mooy paa ngeen dem ba war a nekk ay paa bu nekk ay paa gën a gis ñun yàlla yàlla defal na ko doomu aadama yi loolu la ñuy ñaan loolu la ñuy bëgg waaye du caagee nekk paa sax chaque jour mu gën ci yow de yonent bi da doon muslu ci yàlla ci bonuk màggat bonuk màggat mooy màggata màggat ba kumur nga xam ne doomu aadama màggat gi day yegg foo xam dootul mënaan ci bopp dara loolu suma day day day wax nit ki ne ci muslu yàlla moo tax suma ne takunu suyuxan ngeen dem ba nekk ay mag étape bu nit ki toll nag am na jumtukaay yu ko sunu borom di jox yu mu koy sàmmee defe naa joxoon naa leen fi misaal ci gis ngeen sunu kawar yii ci aaxiru zamaan rek lañ toll gis gone yi di teel a bee jaaw waaye ba yëf yi doon doon yëf yi gone da doon am kawar gu ñuul mag bu demee ba jëm mag bee jaaw ñëw daal di weex bee jaaw a ngi weex ngir di la wan ni waajal lee nga dee de affaire bi weex ñuuloon mi ngi weex bee jaaw daal di weex tamit fekk gis nga doomu aadama su jëmee mag yaram wi doole jim doon am ba deret ji di circuler ni mu ko bëggee wala na mu war a amee doole jooju dafay commencé di wàññeeku moom ngay gis yax yi di commencé di metti ah deret ji ni mu doon dawee circulation bi commencé di yooyu yëpp ci màggat gi da koy waral gis nga doomu aadama tàngoor wi yi jóge ci kaw di ñëw weexaayu karaw bi ci dafa mel ni genre xoma xoma adaptateur ngeen koy xoma seen seen këfin këfin yooyu ngeen di jël di ko doxalee diggante jumtukaay bi ak courant bi allahu akbar moo tax gis nga mbokk yi borom bi sottal ko kéemaan ay yëf gis nga adaptateur ni muy dox diggante courant bi ak appareil bi ngir bañ mu yàqu di jël lam soxla noonu la kawar gu di weex di def ci diggante li ngay aspiré ci tàngoor wi ak li jant li yaram wi soxla su ma li takkoonoo su yoo xam ngir dem ba nekk ay paa am na beneen aaya dane wa minkum man yuraddu ila arzalil umr am na ñoo xam dama leen di delloo fa mu jëntalu dund ak kumur li kay laa yaalama min baadi ilmin shay'an nit ki dem ba dootul xamante dara sax ci dund gi ndeysaan loolu yàlla na yàlla musal lu ci moom loolu moom mooy naax nit ñi ne ci guddi nga naan ñu ngi ci bëccëg ñu reer ba pare nga naan añegoo xam nga yëf yooyu moom wax dëgg yàlla ak doye di dëgg la moo tax yonent bi daan ci musulu sallallahu alayhi wa sallam loola nag ñi koy am insha allah ci xeel duñ bari yonent yàlla bi nee na sama xeet de seen fan mi ngi nekk diggante juróom ñaar fukk ak juróom benn fukk ku romb da nga rëcc yent yàlla bi nee na lu néew ci xeet yi ñoo koy romb ku romb da nga rëcc xam ngeen xeetu njëkk yi bu ngeen fàttaliku ci dar si passé wax naa leen nit daana faatu ñu di ko jooy naan deen ak ndaw te dund na ñetti téeméeri at ñetti téeméeri at nit da koy dund faatu ñu koy jooy ndax naan daa dee ak ndaw ñun moom léegi da ngay gis ku dund téeméeri at sax bu faatoo dañ naan waaye ba nga waree dee daa yàgg ñun téeméeri at sax daa yàgg ci ñun téeméeri at sax dafa loolu wallaay mbokk yi loolu da lay wan ni adduna bi dafa gàtt torop xoolal jëlal ala sabili misaal juróom-benn fukk ñu bari ci dunduñ ci yegg moom waaye léegi jëlal juróom-benn fukki at léegi gis nga juróom-benn fukki at am na xadis boo xam ne yonent yàlla bi nee na yàlla dakkal na ngàntab nit ki ginnaaw bu mu ko mayee juróom-benn fukki at borom xam-xam yi dañuy wax ni gis nga juróom benn fukki at boo ci génnee sa li nga nekkee gone nga génn waale ci li ngay nelaw boo ci booleeg li ngay feebar sa dund gi yépp yépp vingt cinq ans wala mooy vingt léeg-léeg du mat vingt cinq ans maanaam da ngaa jàpp ne juróom benn fukki at nga am waaye boo ci génnee li nga nelaw génn ci li nga feebar génn ci ngone gi yi yi maanaam yi nga xam ne jëriñoo woo ko yépp boo ko ci génnee calcul bi vingt cinq ans la lay jox léeg-léeg sax du ko mat kon sa dund gi yépp nekk ñaar fukki at la ak juróom loolu dafa war a soññ doomu aadama bi ngir mu góorgóorlu bu baax digganteem ak boromam borom bi mu ne wa minkum man yutawaffa min qabl am na ñoo xam duñ fa yegg dama leen di faat avant ñu fa yegg ndeysaan am na ñoo xam balaa ñoo judd faatu du ñalaale bakkan am na ñoo xam dañuy génn ba noppi faatu am na ñoo xam dañuy dem ba commencé raam faatu ñii commencé dox faatu ñee commencé dëgër faatu ila axiri façon faatu bu nekk yéen a ngi koy gis ci at yu nekk moo tax mu ne wa minkum man yutawaffa min qabl sunu borom mu ni am na ci ñoo xam ni yàlla daf leen di faat ci lu jiitu loolu balaa ñu jëm mag wali tablugu ajala musamman am na ñoo xam ne dañuy yegg ca àpp ba nga xam ni moom leen suñu borom àppal ñii 35 ñii 40 ñii 50 ñii 60 kenn ku ci nekk àpp ba la suñu borom jox gis nga àpp bi la suñu borom jox saa bu yegg see minute wala seconde doo ko romb ida jaa ajaluhum la yastaxiruna saatan wala yastaqdimun fi ne ñun ñii ñëpp ñu ngi dox fi ne ci kiiraayu kumpa mooy kenn xamul kañ la am na ci ñoo xam ne ci ñun allahu akbar mbokk yàlla yàlla yërëm na bu ndajee ñun moom am na ci ñun ñoo xam ne fi ne li leen dese tuuti la tuuti tuuti laa fi ne te yëguloo tuuti xam nga li wolof yi naan tuuti gallantaan tuuti gallantaan moo leen dese te yëguloo am na koo xam ni li muy reeweeg fa mu yaakaar dana fa yegg ndekk du fa xaaja yegg moo tax borom bi waxu la dara wala fi nag dañuy lekk ni kundul xaar da ngaa war a xaare kundul xaar da ngaa war di xaare moo tax borom ni wali tablugu ajalan musamman ngir ngeen yegg ci ab ba nga xam ni moom la leen son borom joxoon wala allakum taaqiloon ngir ngeen nekk ñoo xam di ngeen xellu ngeen xalaat ndax doomu aadama kat jàpp naa ni étape bi nga xam ni fa la nit kiy nekkee mu kallaf bu ko xasee joggi commencé di xalaat war naa xam dëgg-dëgg la suñu borom namm ci moom wala déet waaye liit ku ko dégg war naa xalaat ba mu yéemu ci borom subhanahu wa taala yéemu gi nag du yéemu pour war a yéemu waaye yéemu la pour gën a góorgóorlu ci jaamu gi yàlla suñu borom defal na suñu borom ni huwa moom suñu borom ba léegi ah moo tax gis ngeen suratul xaafir xam ngeen suratul xaafir dañ ko tudde suratul mu'min saaru ku gëm yàlla dañ koy tuddee suratul xaafir lu tax ndax mbir yi tax nit ki gëm yàlla da cee bari huwa alladi sunu borom mooy ki nga xam ne yuxyi mooy dundal wa yumiitu mooy reyee sabab yi ñuy reyaatee nag muy paaka jam ak tiire nga deeg lekk posol yi doomu aadama mën a def boppam ak yin koy mën a def yëgal ni sabab su ca jàll sabab suñ góor mu dugg rek daa tombe ak àpp foofu nag ñun dañoo am problème ngëm-ngëm boobu maanaam doomu aadama yi léeg-léeg gëm di nga gis ko xam dana gëm ni lu xew yàlla moo ko dogal waaye bu yegsee ci sabab yi day am problème maanaam gis nga nag problème boobu bu dañee ci yow rek ci ngay gëm ni ndekk nit mënta rey nit ndax sabab yi tax nit dee defees na ko ay nit te deewul xam ngeen ni daanu na jël la deewut nit daanu bu ko gën a oyof dee ah léeg-léeg nga gis suñ kaa yi ko naan gis nga sama noox noox bi bal xaw ma lan lañ ma ca dóoroon ca guerre xaw ma mondial xaw ma lan moo ne bal day rayee da ngay gis koo xamante ni poson la yëkkate luy rayee ah poson man xam naa waajoo xam ni comprimé yam naan nee nañ genn wàll ga rek boo ko naan rek war na laa mën a rey li may nit ci dama kaa fekkee man kenn nettaliwuma ko xam naa loolu comme daa yàgg xamatuma waaye daal ci gàttal daal lam ci tib tibb moom xaw naa matub loxo moom ngir ne daa am lu ko naqari mu seex ko nga xam ñun ñëpp ñàkkoon nañ ci yaakaar moom te ba tey mu ngi takk day soxna yor na kër gi doom maam da lay wan ni gis nga mbir yi borom bi subhanahu moom rek mooy reye borom bi rek rek rek mooy reye subhanahu wa taala doomu aadama sabab yi war a reye yépp bu ko jëfandikoo woon te yàlla dogalul sa àpp nga faatu doo faatu huwa alladi yuhyi wa yumiit mooy dundal mooy reye ku dund suñu borom moo la dundal ku rey ku faatu suñu borom moo la faat léeg-léeg nag sa faatu dafay tombeek sabab ndax waa jii daa war a tàbbi sawara te pour mu tàbbi sawara faw mu jaar ci yow pour mu rey la yow mii da ngaa war a tàbbi àjjana ndax dañ lay tooñ pour rey la sa tàbbi àjjana mi ngi jaar ci rey gii ñu lay rey yow mii sa app daa war a jeex te kenn ku appam di jeex suñu borom dafa am nu mu programme ak faatoom loolu mooy waral sabab yi di jàll loolu mooy waral sabab yi di jàll de bu dul loolu bariwaana moos lu nit def dee nit def ko am jàmm bariwaana lu nit def am jàmm nit def ko dee moo tax kon yox yi borom bi mooy dundal wa yumiitu mooy raye fa ida qada amran su nammee menn mbir ak mum mën a doon fa innama yaqulu lahu sunu borom daf koy wax kun nekkal rek fa yaqulu mu daal di nekk allahu akbar loolu kenn rek moo ko am mooy suñu borom kun fa yakun léeg-léeg doomu aadama yi xam nga seen dëgër fi di yegg nañ ci diw mooy borom kun fa yàkkoonu diw nangam nangam loola man man de man de li ma gëm mooy ñi koy wax sax gëmuñu ko maa ma xam ne amul xel man de loolu laa gëm li ma gëm mooy ñi koy wax gëmuñu ko c'est que xam nga léeg-léeg taaxuraan xam nga taaxuraan kat moom daa mën a wax wax lu amul taaxuraan kat dafa mën a wax wax lu amul borom xam-xam yi dañuy wax ni aadabu shiari akdabahu li gën a neex ci way mooy na ci gën a nekk ay fen adaba shiari ñu ne ak dabahu gis nga taaxuraan ak way la ca gën a neex mooy la ca gën a nekk ay fen moo tax sunu borom wax wa suara yattabi'ul ghaawun alam tara annahum fi kulli waadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yafaalun benn buur dafa organisé woon benn fête mu ne waykat yi ñëw leen kenn ku nekk na nga way xam nga waykat yi kenn ku ne day dajale affaire yoo xam ni sa waay boo ko déggee da nga yéemu ci yàlla benn waay yeeg si nii al kalbu kalbun والحمار حمار والديك ديك والدجاجة مثله nit ñi di ko reetaan buur bi moom la jox kadday moo ne moo wax dëgg de moom li mu wax amul benn man affaire bi géey na ci dégg-dégg waaye nag dëgg la de fenut de gars yi dañ fiy nekk di wax wax yoo xam ne sa waay naaw na ca asamaan saak wàcc na yéeg na ca garab ga loo xam ne dara du ci dëgg mu ne al kalbu kalbun xaj de moom xam naa ne xaj la wal ximaaru ximaarun mbaam it moom xam naa ne moom mooy mbaam mu ni at déeku déekun séq moom xam naa ne mooy séq wadda jaajatu mislahu xam naa ne ginaar bu jigéen din moom moom a yem li mu wax lépp dëgg la waaye taaxuraan moom da ngay dégg gars yi di wax diw moo def nangam diw moo def nangam diw mooy borom kun fa yakun yooyu yëpp ay taaxuraan la waaye amut borom bi rek mooy borom kun fa yakun ida arada shay'an bu nammee benn mbir fa innama yaqulu lahu kun fa yakun danaan ko nekkal rek mu nekk nekkal mu nekk allahu akbar loolu mooy quwa dëgg inna allaha huwa razaqu zul quwati almatin muy asamaan muy suuf muy mbindeef yi lépp loo xam ne doomu aadama da cay def coono pour mu war a nekk ak lu ko gën a rëy moom sunu borom moom dafay wax kun nekkal rek mu daal di nekk kon loolu day wax ni ku am kàttan ba mel nii kooku lañ war a jaamu kooku lañ war a gëm kooku lañ war a topp ñu ngi ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiq fi dunya wal axira اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا من يقبل اليسير من العمل اقبل تقبل منا يسير أعمالنا يا من يغفر الكثير من الزلل اغفر كثير زلاتنا وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين